Clairefontaine sama partenaire la daf ñuy may après ñu distribuer ko famille yi léegi nag ñu indil madame euh, Touré si Alassane Ndiaye Alou mu mën a dimbali boppam ak xale yi en fait. loolu yi dañu bëri woon am na yenn parents d'élèves yu ñu mayoon yoo xam ne dañ ma doon trou dañ ma doon fekk si parc bi comme ouverture la ñu leen di jox pour seeni doom seeni famille après madame Touré tamit dañu waxante woon. moom it dafa am ay besoin pour ay élèves am yooyu si lañ ko indi. dañu nekk ci école primaire xale yi dañu soxla fourniture pour mën a jàng dañu soxla stylo dañu soxla kaye dañu soxla livre donc ku ñu fekk si nag jàppale ñu ci lu ñu def lu dul kontaan ndax euh, xam nga ne Médina bëri na ay cas yoo xamante ne des personnes qui sont diminuées parents yi bëgg nañu mais souvent duñu mën donc boo amee ku la jàppale nag lu dul bëgg au nom de l'équipe pédagogique par ma voix maa ngi leen di remercier bu baax. dañuy xool rek euh, ñi ko yellool ñu jox leen ko parce que jusqu'à présent am na ñoo xamante ni seen ñu fourniture matul ñu xool ci cas yooyu ñu jox leen comme ça ñu mën a jàng comme seen i morom. dina ñoo ko bokk te dafa metti te lu waay mën rek war na ko ci mën a def parce que fii lañ juddu fii la ñu yaroo voilà c'est ça. dina moo ñu soxal mooy suñu suñu quartier xale yi suñuy doom lañu et voilà yàgg sax. école Alassane Ndiaye Alou moo ñuy ubbil ay portam école yëpp ubbil nañu mais Alassane Ndiaye Alou moo ñu ubbil ay portam pour Midi Vague bi. Euh, suñu partenaire la au jour d'aujourd'hui lu ñu am tamit dañ koy bokk ak ñoom ak yeneen écoles yi sax du problème parce que yëpp benn lañu mais madame euh, Touré ba ñu ñëwee daf ñu ubbil grand ouvert euh, porte école bi en même temps lu ñu soxla woon daf ñu koy jàppale. actuellement au niveau de l' école Alassane Ndiaye Alou suñu jafe-jafe majeur mooy xam nga ne actuellement nii on parle de curriculum te ku wax curriculum. il faut des moyens d'accompagnement moyens d'accompagnement yu ne mooy lan mooy euh, photocopieuse mooy imprimante mooy ordinateur mooy rame de papier yooyu boo ko amul rek sa liggéey du mën a dox autorité nañu gëstu école yi parce que les écoles non pas de fonds amuñu fonds de roulement boo xamante ne dañu permettre ñuy acquérir matériel bi ñu soxla donc dañu war jàppale ñu gëstu école yi jàppale ñu ci ay photocopieuse ay imprimante ay ordinateur ay rang de papier li nga xam ne moom la ñu soxla day pour mën a def suñuy suñu liggéey correctement